savoir, le ministre de de l'habitat, qu'il est en même temps ministre de la Ville. En tant que ministre de la Ville, il doit prendre en compte tous les aspects liés à l'urbanisation de la ville. Et je pense qu'il n'est pas le ministre du recasement, ni le ministre du désencombrement, mais il est le ministre de la ville. Donc il doit prendre tous les aspects liés à l'urbanisation de la ville. Donc il ne faut pas prendre en compte seulement les marchands, les, les, les, les, commerçants de Sandaga. Parce que quand on parle de Sandaga, Sandaga et tout ce qui entoure Sandaga. Parce que euh, les marchés est pléthorique, c'est pourquoi les marchands se sont déversés sur les rues envoisinantes. Donc je pense que pour régler le problème de Sandaga, il faut prendre en même temps les, en, en, compte les, problèmes, les marchands de Sandaga, mais aussi il faut prendre en compte ce qui occupe les alentours dans ce projet de Sandaga. C'est ce que vraiment nous déplorons et nous appelons le ministre vraiment à, à de pallier à cette situation. Parce que sinon, cette perdurer. Parce que si on nous déguerpit de Sandaga, nous allons chercher encore d'autres endroits pour y occuper. Parce que là où il y a les clients, nous, nous ne cherchons que la clientèle. Donc là où il y a les clients, forcément, nous allons nous y installer parce que nous voulons quand même euh, chercher de quoi vivre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Euh, comme il a dit aussi, euh, euh le ministre n'est pas encore est en train, nous demandons encore une synergie gouvernementale par rapport à la, à la gestion Euh, de la situation du commerce au Sénégal. Parce que euh, pour l'organisation du commerce, c'est le ministère du Commerce qui doit s'occuper de l'organisation du commerce. Il les communes qui doivent occuper aussi de la gestion de l'espace public. Mais malheureusement, on, dit que, on, on dirait que le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat et le ministre du Commerce, il est en train d'organiser le commerce, il est en train de gérer l'occupation de, l'espace public. Donc il est à cheval dans beaucoup de domaines qui, sont pas, qui ne les, les, les, les siennes. donc euh, vraiment euh, sur ce point nous nous demandons une synergie gouvernementale. donc euh, en tant que métier de survie nous vivons au jour le jour donc si nous restons des jours sans travailler euh, nous ne pouvons pas vivre euh, normalement euh, ce qui fait que on a subi vraiment vraiment de réels impacts par rapport à cette situation on nous a déguerpi il y a le problème des transports en commun euh, on a réduit les places parce que vous voyez que presque tous ceux qui fréquentent ce milieu vivent dans la banlieue pour venir à Dakar il faut payer le double de ce qu'on payait euh, il y a le problème aussi de de de de de, de loyer on a on a interdit les déplacements entre les régions euh, donc nous sommes confinés à Dakar nous ne pouvons pas aller chez nous et nous ne pouvons pas travailler ici euh, à Dakar Nous ne pouvons pas donc payer les loyers. Nous n'avons pas de quoi nourrir nos familles, ni nourrir nous-mêmes. Donc euh, c'est difficile pour nous. Et, et, malheureusement, plus encore, nous n'avons pas bénéficié euh, des retombées du plan de résilience économique euh, prôné par l'État du Sénégal. Nous n'avons pas été pris en compte sur ce plan-là. Donc, euh, ce qui fait que nous avons subi vraiment, vraiment euh, des réelles difficultés et que nous continuons de subir jusqu'à présent. Euh, mais il faut se poser des questions parce que cela nous a permis de faire euh, une diagnostic, un diagnostic sans complaisance de, de notre situation parce que ça nous a poussé à beaucoup réfléchir. Pourquoi nous n'avons pas été pris en compte Ça, c'est une grande, c'est question. Parce que nous, euh, parce que nous ne sommes pas formels. Donc, euh, nous, nous, nous, demandons à l'État d'aller vers la formalisation du secteur informel. Pourquoi Parce que euh, c'est vrai que nous sommes les plus grands pourvoyeurs. Nous ne pas à l'effort économique de ce pays. Donc, euh, c'est ce qui fait que nous sommes les parents pauvres des politiques publiques. Euh, donc, nous sommes, nous sommes pris en compte dans aucun programme euh, initié par l'État du Sénégal. Euh, parce que nous ne contribuons pas assez. Et donc, nous appelons l'État à aller vers la formalisation. Mais la formalisation demande des préalables. Et pour aller vers la formalisation, je pense que Euh, il faut d'abord euh, des statistiques fiables concernant ce secteur pour savoir qui est qui, qui fait quoi et dans quel milieu il exerce. Ça aussi, je crois que c'est un préalable pour aller vers la formalisation. Euh, c'est pourquoi euh, et, et nous avons constaté aussi il y a des niches à exploiter sur le plan fiscal concernant l'État du Sénégal, parce que nous devons contribuer vraiment à l'effort économique de ces pays compte de la situation. Et pour cela, il faut que euh, nous allions vers la formalisation du secteur informel. Donc c'est ce qui fait que nous ne sommes pas pris en compte parce que euh, nous n'existons dans aucun fichier de l'État. Donc euh, c'est pourquoi toutes les autres couches ont bénéficié des retombées du plan de résilience économique et sociale mis, le, mis, mis en place par le président de la République. C'est ces questions-là Euh, nous nous sommes posé ces questions et voilà les réponses que nous sommes apportées. C'est pourquoi nous nous, nous, nous, euh, nous demandons à l'État de penser réellement à la formalisation de secteur informel, de poser les jalons de, de, pour aller vers la formalisation de, de, ce, de ce secteur. Je crois que, euh, comme l'a dit le président, nous ne sommes pas euh, une organisation qui, euh, la juste, juste pour demander de l'aide ou dire que nous n'avons pas bénéficié, mais nous essayons quand même de rapporter, d'apporter de, de, de, des solutions par rapport à notre situation. Comme il l'a dit, euh, dans, la, dans, le préambule de notre euh, statut, nous avons carrément euh, que nous, sommes, nous avons créé cette organisation pour venir en appoint à l'État dans la recherche de solution par rapport au phénomène de, à la problématique des marchands ambulants à Dakar. Donc il nous appartient euh, toujours, dans de pareilles situation de, de, de, réfléchir pour apporter des solutions par rapport à la situation que, que, que nous vivons. Nous avons créé 2009. Nous avons créé, boobu ba léegi ñu ngi nekk ci nekk ay marchands ambulants ak ay euh, travailleurs du secteur informel ak ay commerçants ñooñu ñoo ko ŋànk comme ni ñu ko waxee rek ci suñu introduction yàgg nañu am ay jafe-jafe mais Covid bi dafa ñëw renforcer gën a mettil suñu nekkin ndax ñun euh, bi nga xamee ni yàlla def na président Macky Sall nekkaat ci euh, nguur gi dafa mettre dafa ci gouvernement bi da ca indi benn euh, ministre bu bees boo xam ni dafa yor donte nekkoon na fi mais dañ ko gën a renforcer mu yor mbirum cadre de vie ak euh, maanaam tënk daal defar nekkinu askan wi ci dem dégg dikk bi euh, changé xar kanu dëkk yi rawatina ndakaaru boobu ba léegi nag ñu ñuy sibiir projet yi nga xam ne teg na ko ñun dañu dañu nekk loo xam ne sibiir nañ si par exemple euh, depuis bi ministre bi ñëwee yéen a ngi doon dégg si ginnaaw mu ngi doon désencombré désencombré na rue yu bëri désencombré lu mel ni Liberté 6 désencombré raison yu euh, am na ay marché yu bëri désencombré lu mel ni Kaolack ah fii ci dakaar am na yenn avenue yoo xam da ko dindi ay Blaise Diagne euh, ci jamonoy Covid bi nag ñëwaat gën ñoo reeti lu mel ni Clarisse ñu dindi ko lu mel ni ay rond-point Case bi ñu dindi ko fépp foo xam ni activité. commerce informel wala ñu leen di tuddee marchand ambulant yi dañoo ñëw dindi seen activités yi ñu def loolu nag nekk loo xam ne dafa metti si ñun mais comme ñun suñu organisation bi ñu ñu xam dëgg souvent du ñu gaaw di wax parce que fu nit ñi di wax toujours ñun duñu ñu xoolee ci angle ba parce que ñun toujours dañuy préférer indi ay contribution loolu moom mooy suñu dema bañ suñu état dañuy wax ni dañuy ñëwal état en appoint ci jafe-jafe yi nga xam da nga koy am moo tax loolu Euh, boobu ba léegi ñu ne nañu xaar bu ñu xoolee ñu càmbar mbir mi euh, président def na plan de relance plan de relance bi ñun concerné wuñ ñu maanaam jëluñu ci en compte ci plan de relance bi tey amul benn marchand ambulant boo xam ne tey jii mën nga ne bénéficié wu nga ci euh, appui yi ñuy joxe mais loolu ñun du nekk loo xam ni danañ ci taxaw di ci di ci wax lu yàgg ndax dañu jàpp ni loolu xaj na li ko waral SDE dina ci ñëw. Euh, liggéey la boo xam ne état da ko waroon def bu njëkk ci marchand ambulant yi bu ko defoon tey jii nii problème bi ñuy am ba duñu mën a identifier xam kii kan mooy kan ak kan moo dul marchand ambulant duñ ko am yooyu yëpp dañu bokk ci loo xam ne daanaka dund nañ ko euh, sàndaga bi ñëwaati dalaat suñu kaw ndax sàndaga dafa am ay ay anomalie wala dafa am ay jafe-jafe yu bari parce que le ministre Abdou Karim Fafana moom il et dans son moom liggéeyam mi ngi koy def mooy euh, désencombré embelli def embellissement lijjanti mbirum cadre de vie dama koy wax toujours naan ñoom dañuy wax cadre de vie mais ñun on réclame survie mais dafa mel ni dafa am ay naataangoom yoo xam ni dañu waroon a intervenir ci dossier bi dañ ko bàyyi ak dossier bi parce que moom du moom mooy organiser commerce euh, maire yi ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy occupe ñooy organiser commerce bi euh, le ministre du commerce war ci dugal loxoom mais boo xoolee dafa mel ni ñoom dañu bàyyi ak Abdou Karim Fofana liggéey bi rek so loolu jafe-jafe lay am waxoon nañ ko ci départ bi xamal nañ leen leen bu fekkee ni da ngeen a bi ngeen état bi président bi indi ko képp kuy Sénégal da ngay bëgg dëkk bi xar kanam gi changé waaye ne dafa war a nekk benn politique boo xam ni synergie d'action dafa war a am autour des différents ministères ñu àndandoo liggéey waaye du kenn benn ministère rek moo ko mën a jël ŋànk ko parce que boobaa kooku yoon bi gën a daw yomb lay def rek mooy man naa dajj rek naa dajj rek samp ay fleur naa dajj sant ay euh, ay ay euh, euh, place yu nit ñi mën a noppalu ko waaye moom du indi solution ak yi nga xam nit ñi amoon nañ ko seen wàllu emploi du leen ko remplacer. loolu taxoon ñun ci départ dañoo waxoon ni lu mel ni ministère du travail nga xam ni ñun ay travailleurs informels lañ dañu dafa waroon a impliqué wu ci dossier bi lu mel ni ministre de l'emploi yor mbirum jeunesse da ci waroon impliqué wu y compris ministre de commerce ak yeneen ministre yoo xam dañoo waroon àndandoo ñu defoon lu ñu sumbandoo liggéey bi su ko defee am na ci foo xam ni par exemple moom du mën a def loolu yeneen ministères yi ñëw intervenir loolu xañ na duñ ko mën a développer ci bi mais jafe la yoo xam ni dafa ñëw ci euh, projet bi su ma ñëwee si li nga xam ni tey jii nekk na en actualité muy mbirum euh, Sandaga bi Sandaga comme li ma ko waxaat rek le maire bi nga xam ni moom mooy maire Dakar Plateau Alioune Ndoye daf ñu convoqué war na mat léegi six mois présenté ñu wala ëpp na ko sax présenté ñu projet bi ni ñu projet bi nii la bâtiment central bi nga xam ni moo nekk Sandaga dañ koy rénover dañ koy defaraat. bu ñu ko defaraatee dañuy def benn annek centre commercial ci wet gi boo xam ni ñi nga xam ni ñoom ñooy impact yi nekk euh, ci commune bi yépp ñu jël leen en compte muy les borom cantine yi ak tablier yi nga xam ni dañu nekk ci euh, périmètre bi ñu war leen jël en compte sa loolu euh, bi mu ñuy wooyee waxtaan ñun dañu approuvé projet bi ñu ko ñun d'accord nañ si mënuñu woon nag mi ngi xaar parce que dafa am ay jafe-jafe bu amoon diggante entre ministère du commerce ak euh, moom commune Dakar Plateau bi jàpp ni moom moo war a defar ak euh, waa ñi nga xam ne ñoom la ñuy wax taxaw Sandaga waaye ñun li ñu concerné woon mooy ñun daal ñun bu ñu defaree nañu nañu tenir en compte duñ dugg ci ay détails toujours dama koy wax c'est-à-dire ñun dualité bi am entre l'administration wala euh, euh, l'État ñun duñ si dugg parce que souvent ñun ñoo doon victime bi mais ñun duñ si bëgg a dugg parce que temps da ngay gis projet yu mel nii ku ne xam ne ni maire moo war a yor lépp luy jëm ci euh, marché mais da ngay gis ay ministère dañ ciy ñëw di ci intervenir loolu xaj na ñoom seen biir mais ñun li ñu si soxlaat rek mooy suñu defaree ëllëg dañuy bañ toog ñu defar ba pare dëkk bi ñu raam ñu wala da ngeen jëluñu ñu en compte so boobaa duñ ko nangu. parce que ça day nekkaat la même sos ma rappelle histoire pour ñu xamul cantine yi nekk fii tey ñu leen di coow ñu nag ñoom ñoo nekkoon même statut ci jamonoy gouverneur Thierno Birame Ndao moom moo leen fi aménagé loon defoon leen ay tablier jamono jooju ay tablier la ñu woon ay ambulance lañ ñu may leen ñu nekk ay tablier finalement ci la ko gars yi def ay cantine ba tey jii loolu moo indi cantine yi ñu nekkaat ñun ci même situation boobu kon su état indee benn projet boo xam ni dafa war a dafa war ñu jël en jël ñëpp en foofu laay daanale